ziara waaw maa ngi lay fay maa lay fay. tey nga ñëw si lii nga xamante moom koo ni si sa jigéen ñaale la ngeen yàgg a liggéey lan nga ñu mën a wax ci moom. waaw li ma mën a wax ci moom rek mooy euh, d'abord maa ngi koy jaale ñëpp di ko jaale àdduna euh, di ñaan yàlla na ko yàlla yërëm xare ko ci ajo yi gën a kawe. waaw sama diggante ak moom comme ni nga ko waxee àdduna gis nañ ko teg nañ ci seen bët donc maa ngi koy jaale soxnaam ak njabootam yëpp di ko jaale Khady Diaw aussi Euh, di ñaan yàlla fee mu jëm yàlla na ko gënal fii mu nekkoon njaay nit ku baax la nit ku am colère la nit ku am taalibe la nit ku gëm yàlla la waaw et puis nitu jàmm la woon waaw jàmmale woon am solo. waaw euh, Ndiaye nekk comédien boo euh, xam. doon nommé international mën ko xam bari na xam nga léegi bi may ñëw ci yoon wi rek maa ngi koy wax xam nga. lii yàlla suñu borom rek moo ko mën te yàlla lu mu def kenn mënu ci dara man damay fàttaliku léegi ci yoon bi laa koy wax naan téléphone bu ñu mu saan déggante rek su ma ko woowee li muy njëkk a def day fexe fàttali fàttalikuloo ma benn nit ma daal di ree ba pare ñu soog a waxtaan donc moom dafa nekk nit boo xam ne xam naa ne yàlla def na li nga xam ne moom moo gën waaye dinañu manqué trop trop trop trop jërëjëf euh, dana nuyu naa la maa ngi fay soxna tay nga ñew fi ci triste nouvelle bi dem ba légui ñu am nakar ak tous mm-hmm. di ñay mi nga xamanteni comédien dafa nommé mën na né international bu mm-hmm. joggé fi tay na lan nga ñu mëna a wax ci moom yow nga xamanteni euh nekkal nga jiga ñaalé nekkal ci nga xamanteni yéne nga a liggéey mm-hmm. ngi nuyu wa Sénégal yépp di jall wa Sénégal ndax té du artiste rek ñak Sénégal ñëpp ñak kër diiné yépp ñay fu mu ci daan dem da ngay foog ne fii la bok ñay daan doon ko xamni ci day fexé bu fu mu nekk nit ñooñu dañuy bëgg dalan jamu yalla yàlla jamu yalla mako ñaanal yalla nako yalla xare xaare te yexum yalla nako yalla sam yalla yàlla na yàlla sàmm njabootam gi mu fi bàyyi nit ku bax la te ku gore la ba dem yaay gore na ba dem ndax kess mu ko déggal ci tele yi wala nangam ñu len yaay mi ngi gaaj ndimbal wala mi ngi dem di demal boppam yalla diko dimbali ba nim demé kon gore na ba dem feebar bi da ko do neub est-ce que yéen yëgoon ngeen ko waaw yegon nañ ko ñun yegon nañ ba ñen ñi do doon mënu fi diko séti mais musu ci laaj dimbal wala leen da ci dem ak ngorom ak di dem ak suñu borom waaw di ci dem ak yalla yaakar ci yalla ak dem ak ci ak ngorom loolu gore na ba dem waaw. fan yii réew mi dafa rëppajoo mën nañ koo wax tasaaroo buñ la agressé wu ñu ngi lay rey. Mm-hmm. mu nekk loo xamante ni si ñëpp euh, ñaawlu la. Mm-hmm. en tant que porteur de voix lan nga ciy wax. li ma ciy wax moom mooy ñu njiital réew mi rek changé beneen doxalin groupe bii képp ku fi def lenn wala ñaawte ñu teg la daan yéen la war a daan mais dafa oyof toll. ci nit rey nit rek libre noonu wala ñu jàpp la tëj la noonu dafa yomb dañoo waroon a fexe ku rey nu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo ku fitnaal nit ñu fitnaal kon yow de mort ma ci lu la maa lay fay maa lay fay di la li nga xamante ni ñoo ko bokk Sénégal yëpp ñoo ñàkk kii di njaay yaay nekkoon koo xamante ni si bu ñu bëggalul rek euh, ci àddina bi mën naa amul nga nekkoon jigéen ñaaleem nekk moom di liggéey lan nga nu mën a wax ci jëmm ji dem tay waaw li leen mën a wax rek mooy eh, di ko ñaanal d'abord yàlla jéggal ko taxaw bi rafet na di gërëm waa Yoof dëgg yàlla ñu ko taxawoo rafet na trop waaye di gërëm bu baax a baax a baax eh, ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ assisté mbir mi àndandoo moom ñaanal ko taxaw ko waaye di wax rek ni nañ gën a nañ gën a amaat taxawaay bu rafet nii gën a góorgóorlu lan nga nu a wax nga xamante ni moom moo di feebaram ndaxte yaakaar nañ ni que bi xaw na yàgg tuuti xaw na diire. bi xaw na diire un peu mais nag lépp sant yàlla la sant yàlla la tey yàlla def na li yàlla na ko yàlla nit ñi wax ni que ni dañ ko seetaan na yu mel noonu lan nga ciy wax. waaw ñu ngi lay jaale affaire bi waaw waaw. mel ni que nit ñi mu seetaan. loolu amul nañ bàyyi dañ ko seetaan taxawaay bi war def nañu ko ba mu mat sax kon kooku loolu amul loolu amul waaw loolu lan nga mën a wax ci li nga xamante moom moo di situation dëkk bi moment bi bu ñu rayul agressé euh, ñu ngi ci yeneen ñaawteef euh, lan nga ci wax. ñu wax rek nii nañ xoolaat doxalin bi rek ndax réew mi ñoo ko bokk Sénégal kenn di ñëw di ñu ko defaral ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp kon nañu amaat taxawaay bu rafet daal ndax lu ñaaw amul njëriñ. en tant que ko dund ak Ndiaye ay at i at lan nga mën a wax ci li nga xamante ni dund nga ci moom maanaam anecdote boo xamante ko fàttalikoo bari na bari na bari na bari na moom daf ma daan toog ba mu yàgg mun ma doyen yeex naa laa xam billaahi doyen yeex naa laa xam xol bi nga am man bëgg naa ko yooyu dama doon wax li ma wax moom ci la nekk donc yooyu la doon dund ak man ay dund yoo xam ni loo ci nettali rek bonheur la donc tey yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi a kawe jërëjëf moom moo nekk euh, bi mu nekk jiite ko fi la nekkoon di fi liggéey Bouba nuyu naa la

lu ñaaw mu jéem ko defar ba pare nekk jullit donc vraiment euh, muy perte bu métti. yan moment ngeen mujj dund ak ah, man Ndiaye li ma mujj dund ak moom mooy day day mujj gi dama naan du ma ko gis parce que su ma ko gisee amaana boobu xam naa ni xel mu ñaaw na ci ci feebar bi ay rangoñ rek saa ma ko gisee day jooy ma jooy mu dem ma dem yàlla xam ne ko donc euh, vraiment mu nekk lu metti ah, mais mu dund ak ak feebar ak dignité aussi ak gëm yàlla. donc ba yàlla def li nga xam ne moo gën xanaa ñu ñaanal ko rek mais vraiment nit boo xam ne la du li ma mujj dund ak moom li ma dund ak moom yëpp dara ñaawu si lépp ci rafet parce que jiite yombul mais ci biir ñi may jiite ñëpp vraiment amoon na ci benn place bu am solo ci ñu gis ci biir Sénégal yu bëri ne euh, Ndiaye ni ñu mënul liggéeyal muy waa ñuy ñu ko benn yoon nga doon jàppale bu mu ne pour man loolu sax loolu loolu du wax ji wax ji mooy nit ki moom bu génnee àddina yàlla moom mooy jël. bu ko yàlla jëlee ñu ah, gunge ko ba denc ko fii nga xam ne suñu xel dal na fi parce que man man man laayeen laa donc su fekkee ni moom dafa ci dundam dafa ñaanoon pour bés bu ko yàlla jëlee ñu denc ko fi sama xel da ci dal ñaanal ko rek nit moom bu génnee àddina doo doo doo xool mënoo def dara ba indiwaat ko du dul ñaan ñaan la soxla nañ ko ko defal mais leneen amul importance. lay waa famille ak ñëpp. famille am ñëpp laay wax que ni vraiment massa parce que famille aussi du wa keur jabaram wa keuram rek ñun tam famille am la ñu donc ñëpp perte Sénégal yëpp mo perte parce que ñëpp seede bi yëpp benn la ci Ndiaye parce que ci biir dundam vraiment lepp lu mu wone lu positif la mësa a merci ba tey Ndiaye nekk comédien boo xamante ne da doon nommé mën nañu wax international la nga dund ak moom loo xamante ne tey soo sa xol sori. sama waa maa ngi fàttaliw ma woo ko sama bureau am benn projet ak moom ma woo ko ne ko kaay sama bureau mu ñëw toog ma toog ma ne ko dama bëgg a def lii ak lii ak yow. Njaay jékki-jékki sëgg ma ne ko looy sëgg nekk mi ngi jooy moom boo ko waxee dara balaa mu lay tontu day jooy ba pare ndax émotion rek la feesoon vraiment nit ku baax la woon vraiment Njaay moom. loolu lañ ko mën a mën di ñaan te te du ñun rek ñoo perte euh, lenn peut-être lu may regretter rek mooy euh, je pense que talam fi mu tolloon sax peut-être que sax mënoon na weesu fi mu nekkoon mais loolu la yàlla dogal mais vraiment nekkoon na nit boo xam ne li ñu gis ci mot ci talent ci moom sax pour man li mu amoon weesu na ko te il avait vraiment des projets mais depuis feebar bi tëddal ko vraiment mu nekk ci coono yu metti mais ànd ko ak gëm yàlla donc vraiment ñaan rek la ñu mën a def jërëjëf. merci. waaw nuyu ñu ngi leen di ziare. Euh, tey ngeen ñëw bu nga si Ndiaye ci këram gu mujj. indi ko fii nga ne hmm. jëmm ju baax la nit la koo xamee nit ku baax li mu fi wax lépp du génn dafa baax nit la koo xamee wax dëgg yàlla ko jullit la woon moo ëpp solo ci lépp parce que lu nu mën a wax te waxuñu ne jullit la woon yaakaar naa dañuy bàyyi lu bari waaye li nu mën a sedd daal mooy nit la koo xamee jullit la woon yaakaar na nit ku bëgg doomu aadama la nit ku yaatu xol la woon kon donc tey lii mu am nii ak ñi ko ñëw fekk si ñëpp xolam rek la ko suñu boroom fay tey ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana ne ko malaaka miir mi teeru waaye denc nañ ko foo xamee am nañ ci yaakaar yàlla na ko yàlla xare àjjana laa amoon ci moom ay kàddu yoo xamee dinaa ko wax mu doon nit koo xamee man moom sama xarit la woon yàlla dogal mu doon nit koo xamee daf ma bëggoon trop ci audio yi may def nii dañ ci doon waxtaan mu ne ma man dama laa bëgg loolu nag yàlla moo koy def te cofeel bi mu am ci man bu ko raw laa amoon ci moom. tey jii hmm, ngeen bokk nekk yëgoon waaw yëgoon naa feebaram su ma la waxee yëguma feebaram tax euh, dama koy fekk waaye xam nga feebar moo doon loo xam ne bi la war a yóbbu bu ko réew mi yëgoon terewul boo waree dem allah kulli àllin dem ñun liñ ko mënal rek mooy gunge ko ñaanal ko tey bu ñu yoroon wér fa mu tëdd dafay jug waaye nag doomu aadama euh, jaam ak pexem mais yàlla ak dogalam lii la dogal dañuy def lu nangu ndax nit bu fekkee suñu borom dogal na ab dogalam lenn rek nga mën def lu nangu dogal bi te nangu na dogal di ñaan yàlla xaari ko àjjana. waaw li muy def ci man mooy euh, am naa ci loo xamante wax dëgg yàlla su ma mu toog xajaat na fi waaye nag yàlla moom bu soxlaa jàmm ñàkk donc li muy def ñëpp rek def franchement wax parce que ñun ay xol lañ yor dañuy ay sentiment nit la koo xamee nit ku baax la woon kon soxla woon nan mais nag yàlla moom moo doon euh, jàpp buur boo xamee bu soxlaa rek jàmm ñàkk waaw. jaajëf ay ca mbokk internet yi ba léegi rek ñu nga xamante ni moom moo di Yoff Layeen sama xamante ni fii euh, mën na ni jigéen ñaale Sidi Ndiaye la mu nekk X X naa la. waaw maa ngi lay fay kon maa ngi bu baax. X tey ngeen ñëw moom moo di kuréel gu mujj ana ba njëg yëg nga am nan nga nan nga li nga xamante ni moom moo di ci euh, nouvelle bi. vraiment. ak nakar ak nakar bu baax baax ndax njaay dafa nekkoon sunu nit nekkoon sunu collègue nekkoon sunu mag nekk koo xamante ne fédérateur la woon aussi nekk ku baax a baax a baax maa ngi wax léegi ma ne leen dañuy waaj a um koor rek ñëw na sunu kër bien vrai que gis ni il était faible mais da doon dox mbokk muy ku baax koo xamante ne fu mu nekk nit ñi loolu rek mandargay nit ku baax la waaw donc ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax parce que li mu am nii euh, ñun wóoruñu sax ñu am ko ndax dafa dafa dafa dafa boole ñëpp le monde de la culture mu ngi fi ñëpp a ngi fi a ngi koo fi jeex bi nga koy gis donc euh, ñu koy ñaanal parce que sunu xel dal na ci moom daal. mu nekk koo xamante ni si mën nañu ko baax la parce que seede yëpp benn la ak forte mobilisation bi nga xamante ni tey jii am na fi ñëpp wisi ko ngeen yàgg a dund ak moom tey boo ñu doon wax li nga xamante ni dugg leen ko ak moom tey chaque jour boo ko xalaatee wala tey boo ko xalaatee day sax automatiquement dañu tudd lu dul triste wala loo xamante loo xamante ni lu neex la ku wax ci moom rek danga naan yow la nekkaloon. Euh, il y a à peu près six ou huit ans mois demoon nañ ci Gambie mais bi ñuy ñëw. benn benn takk bu mu arrêté wu ndax moom ndax ci kanam la doon nekk di reet leen reetaanloo di ñu reetaanloo ba ñu yegg si te xam nga yoonu Gambie kii dafa xaw a métti mais Ndiaye mu nekk koo xamante ne vraiment dinañu manqué trop trop trop trop trop dinañu manqué trop vraiment nekk lu am solo dinañu manqué mais dañuy laaj li nga xamante ni moom moo di actualité fan yi réew mi yëngu na bu ñu reyut nit rek ñu ngi agressé mu nekk loo xamante ni ñëpp ñoo koy ñaawlu euh, ana lan nga ñu mën a wax ci loolu ak ban message ngay sànni yi nga xamante ni moo di jeunesse bi pour ñu conscientiser wu un waaw loolu ñëpp ko naqarlu mu nekk loo xamante ne c'est déplorable c'est déplorable ndax fi mu toll nii képp koo xamante ne génn nga sa kër ba guddi di waaj yaa ngi tiit yaa ngi tiit si sa donc di wax nit ñi rek nañu war seen xel ni amna yo xamantene jaru ko fi ku xol li xew fi legi nga xamne aduna bi dara jaru fi dara ah di gëna a consenti conscientiser wat jeunesse bi di leen wax ni rek liggéey ñak jariñu rek mo fi am kep ku ko deful yaa ngi ci safan wa te lolu lu lay jëmee ci lu métti la parce que ndax gaay yi li ñuy mobiliser woni doyna doy trop trop trop trop trop trop merci beaucoup waaw jërëjëf jërëjëf ci ami internet ñu taxawaate nga xam ne moo di moom moo di Ndiaye Thiam nuyu naa la soxna si ñu ngi lay fay lan nga euh, ñu ne ci mën a wax mooy boo dajale woon artistes yëpp di ci gis doo ci gis ku mel ni njaay mm-hmm. am talent booleel aar lépp muy benn mooy saa boo ko woowee ci fecc mu dem boo ko woowee ci way mu dem boo ko woowee ci wat man show mu liggéey ko kon kooku complain complain ngi ci moom mu nit koo xamante ne nag bëggul woon ay mbiram di dem ci site internet billaahi wal kitaab bi ndax durant li mu tëdd feebar yëpp boo ko nee booy lii kaanu kaanu fësal ko mu lànk noonu bëgguma loolu boo ko woowee téléphone danga nga naan kii dara mosu koo dal te boo ko tiimee nga xam ne kii feebar ko ci moom mais nag sunu borom moo nu ko joxoon waaye moo ko jëlaat ci ñun waaye diiraan li mu nekk ak ñun musul def ak ñun lu ñaaw man bokk naa ci ñi nga xamante ne ne man ak moom bokk nañ di ànd groupe Futurs Médias diiraan li ma fa nekk lépp wax dëgg yàlla léeg-léeg këram laay añee euh, seen kër laa doon tourné kooru ngéwal waaw seen seen kër ndax loolu moom ma ko mayoon moo amoon sañ-sañ nag ba demoon ba mujj gi am ay poulailler ginaar yoo xamante ne nii dañ koo seqoon man ak moom yàlla seede na ne mosunoo jaay ginaar danoon def sand bu jot ñu woo ñu tànn artiste comédien yu ñu invité yóbbu leen suñu kër ñu ñu ñu samedi ñu ñu ñu defar suñuy ginaar te loolu ku amul xol bu rafet doo ko man imaginal ak xaalis ni mu saxee ci xol nga jël ko nga xam na nga ci yoo xamante ni nii da nga koy jël di ko defal seen mais nag lépp nag dañ ci sant yàlla li tax ñu ci sant yàlla mooy suñu borom moo ñu ko joxoot mooy moo ko jëlaat te di leen waxal ni euh, groupe Futurs Médias wax dëgg yàlla mention spéciale taxaw nañ ci taxawaay bu am solo lu ko delee ci Youssou Ndour lu ko delee ci Birane Ndour Bouba euh, Ndiaga wax dëgg yàlla taxaw nañ ci taxawaay bu am solo ndax bu doon xaalis kasa la njaay du dem bu doon xaalis kasa la njaay du dem euh, ñu gën koo dolli ñaanal rek ni ma ko ñàkkee noonu la ko sénégalais yi ñàkkee ndax ñu doon bëggal mara détaillé wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm foo mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jóge ci barke Seydina Muhammad. waaw mu nekk lu te day rafet na macha allah mais ngeen nekk nga xamante ni yéen ngi doon dund mu dund feebar bi ci discrétion comme ni nga ko waxee mais ana lan nga ñu mën wax loo xamante ni dund nga ko moom ba xalaate tey ji rek sori non non non non ci koor gi koor gi mën si indil euh, ñu toogoon fa di ndogu kon nag mën ko naan booy lii foog ñu publier ko foog ñu wax ko ci askan wi dafa leen carrément ku ko ci wax baaluma la parce ñun bëggul woon kenn génnee di ci wax wóor na ci yenn ñoo ñoo ba per bu xar def ci taxawaay bu am solo Diallo wax dëgg yàlla Moussa Diallo mention spéciale barke yonent yàlla Muhammad ndax euh, euh, lu ci bëri wax dëgg yàlla ñun buñ ci jotee Moussa Diallo moo tax donte ko dañuy ñëw këram di dem këram mais dañoo amoon benn kuréel boo xamante ne nii fa la information yu jóge di wàcc euh, diir lu mu nekk clinique ba ñu fa doon dem di jaabanteeg moom di di wax dëgg yàlla jabaram na nekk ku mën a muñ barke yonent yàlla Muhammad man mosumaa gis jigéen bu mel noonu tëdd jàppale borom këram ànd ak moom ci feebar bi wax dëgg yàlla bis bi yàlla sàkk di ko delloo si di ko dalal mais loolu loolu mooy àddina mais lan ngay wax li nga xam te Sénégalais yi certains boog wax nañ ko te léegi tout da nga wax ni waa groupe ma jàppale nañ ko euh, certains ni ñoom dañ koo seetaan lan ngay wax kon moo ko seetaan waaw ah, dañ koy dégg sur ay rumeur xam nga nag ñun ay kilifa lañu ñun wax dëgg yàlla rus na du dox ci ay rumeur rus nañu du dugg ci loo xamante ni nii dala leeranu ci ndax lépp lu ñuy wax dañuy wax suñu aqlaay taala Euh, Ndiaye ñun ñoo ko yóbbu clinique moom moo yóbbu boppam clinique walla ay rumeur ko yóbbu clinique ah mais mais kon nit ñi nan xool li ñuy wax xam nga réewum Sénégal na ma yàlla baal ci jéggal mag nit ñi ñoo war a xam boo yëkkati say kaddu fan nga koy teg mm. gis nga booy wax ak lu ci mel ni askan da ngay xam ni ngay wax ak ñoom wax te wax te yàlla rek tax bul wax ngir sa poos bul wax ngir bëgg buzz gars yi romb noonu foofu gars yi fu ñu mooy danoo war a nëbb yu bon yi di feeñal yu baax yi nit ku bu defee lu baax nanu ko wax kañ laa gëj man gëj naa ko groupe maa ngi ku ne xam ne maa ngi senti fii di fa liggéey dafa def mbabar mi est-ce que mën nga mais teewul dara boo fa gisee dëgg da koy wax wax dëgg yàlla ñoom danoo def acte bu am solo te Ndiaye dañ doon dund man ak moom at mari Ndiaye ko man maa ko yóbbu tournée techno ba ni publicité techno man ak moom ko te ñaata artiste comédien ñoo lu leneen leneen est-ce que mën nga yoo xamante ne nii dañ koy jël wax mais nit ko noonu da ngay dëggu mais buñ ñoo dox ci ay rumeur wa Sénégal nag yàqu na mm-hmm. léegi lu ne ni rumeur boo nee boo xëyee suba sax ne sama jabar am na doom gars yi na ce que dëgg la wala ay dóor la léegi nag loo yàq Sénégal ne fu mu toll nii kenn mënu cee wax dëgg waaye lii nga xamante ni nii moom nañu dund te sunu te ku ne xam ne ni sunu xol neexul ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp di lancer appel ministre de la culture na taxawu ay njabootam na taxawu ay njabootam na taxawu ay njabootam wasalaam